maa ngi tudd Ousseynou Diouf maa ngi nekk euh, man maay coordonnateur FOR fédération des organisations républicain de Thiès. ñun dañoo gis ne au lieu que ñu def ay mumbaay di xotti ay tissus di dajale ay jigéen ñuy tàccoo ko feccul sunu xel euh, jubal ñu ci ne 18 mars war nañoo mën a fàttaliku ñi nga xam ne ñoo ngi ci maternité yi toll ci diggante. jo euh, indi ay nit ci àdduna maanaam am doom mu nekk moment bu difficile moment ba nga xam ne képp ku jigéen te jaar ci xam nga nu mu méttee ñooñu xool leen fàttaliku leen doole leen njukkal ci bisu wut marché bi ñu yaakaar ne moo gën a yenu maanaa que nekk di organiser ay xu ay ay xumbal wala di xotte ay tusi wala di maye xaalis ci mbedd bi am na ñu ko gën a yeyoo loolu moo tax for préféré ñëw ji nii

ñu gis ne tamit sànq ci sa biir wax yaa ngi doon ñaawlu benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent dëkk mu ñaa ngi daal koy violé euh, wax nga ni tamit di ngeen ko jàppale ba ba ñu ba ñu def yoon effectivement parce que loolu dafa xew fan yi mu di xale bu jigéen bu bu tuuti bu am fukki at ak ñeent dëkk ngunjaan ay ay sàmmkat ñetti sàmmkat yegg ci kawam yàq adunaam ba mu nekk ci ci ay métit métit loolu nekk ñaaw ñu koy ñaawlu ñun waa fort di ko ñaawlu et ñu ñëw demoon seeti ko ne dinañ ko jàppale dinañ ko taxawu ci wàllu assistance pour wutal ko aboka conseil ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yooyu noonu yoon daal seen kaw bu baax a baax a baax ba beneen yoon jëf yu ñaaw yu salte yooyu dootu fi am. Euh, est-ce am ngeen. Euh, objectif yi ñëw mais effectivement ñun boo ku fekkee suñu assemblée générale constitutive bi xew dimanche passé mais loolu lañ njëkk a wax dañ ne fort d'abord pour ñu def politique fii ci biir askan wi il faut que ñu jege askan wi di ci seen bëgg-bëgg yi gën yi gën a yi gën a jàpp kon nag dañuy ñaan yàlla tàmbali ci benn dem ci ci fukk wala ci téeméer te insha allahu rabbi bu ñu yàlla mayee bakken ak at bu jot ñun moom lii mooy sunu empreinte bu nit ñi doon dem fu kenn xamul tamit ñun ci maternité yi dem xool ñi nga xam ne wasin nañ ñu taxawu leen loolu lañ fas insha allah rabbi at bu jot ñu ñu def ko. mu mel ne yéen politique de politique de développement social ngeen def est ce que fort actuellement ni am les moyens pour pour mën euh, taxawal loolu. waaw loolu laaj bu am solo la fort amul benn moyen ah. moyen bi ñu njëkk am moom mooy d' ay nit ñu gëm maanaam potentiel humain ba nga xam ne euh, ñi sos lii am nañ ab ngëm-ngëm ak euh, pastef ba nga xam ne tëj nii lépp lu ñu sumb suñu borom daf ñu koy yombalal loolu mooy suñu premier moyen deuxième moyen bi li ci def moom mooy suñu cotisation personnelle ñun ñii ñun ñi fi taxaw ku ci nekk yaay yëpp ci sa poche dajale taal sa oto indi sa essence def ci kenn kenn joxuñu dara benn kilifa joxuñu dara ñun ñooy dajale ndax li ñuy def dañ koo gëm te yaakaar nañu yàlla incha allahu rabi dinañu dinañu jàppale. ñun ñaata ngeen bari ngeen au de force yaakaar bon y' a plus de cent mouvements actuellement le bureau tegaguñ ko mais on a au moins de vingt membres. près de vingt membres dans le bureau. vingt membres. non mouvement yi ëpp nañ plus de cent mais dans le bureau y' a vingt membres mais plus de vingt membres mais tegaguñu bureau bi. ok c'est bon. yi jege nañu législative bi. saa ba ñàng yéen. man ngeen di def ngeen def seen liste wala nu ngeen waaw loolu fort dina ci delu siwaat fek ci kanam tuuti xam nga comme ñoo ngi doog a teg assemblée générale bi ñoo ngi waxtaan suñu biir d' abord dans un premier temps dañ ñëwoon nañ fédéré booy fédéré xam nga dina laaj massifié massifié fexe ba ñi nga xam ne dañoo meroon ak ñi nga xam ne boole wuñ leen woon ñëpp dellu si bon il faut que aussi ñu leeral askan wi ñun juguñu pour pour pour pour pour pour pour yakal président Macky Sall ñun ay doom ay ay rak ak ay doomi Macky Sall lañ ci kaam lañ bok au contraire tey jii nii am na nu ñu doon doxalee dañuy appuyer li fi président Macky Sall teg bon li ci des nag moom mooy ñoo ngi organiser wu xool bu fekkee li ñu gis dalul suñu xel yaakaar naa fort dina ñëwaat di leen li nga xam ne moom la moom la ñuy waxtaan waxtaanu biir comme nekk na la nga xam ne nag waxtaanu guñu ci mënoo guma cee sori mënoo guma cee sori maa ngi leen di sant. alors seen bànqaas mu nekk fort mu nekk bànqaas bu ëmb mboolem bi mooy seen gënn gu njëkk. tey est-ce que lii day bokk ci feuille de route bu fort di euh, di déroulé pour programme fii ci mais effectivement lii day bokk ci feuille de route bi et puis dañuy ñaan yàlla di ko pérenniser at bu jot ndax mooy comme ni ma ko waxee tout à l'heure ñun suñu politique d'abord c'est un c'est une politique de développement xool askan wi li soxla ak fuñ fu nga fépp fu nga xam war nañ leen fa mën taxaw dimbale leen jàppale leen sans sans sans arrière pensée et sans contrepartie ñun loolu doon sunu sunu sunu leitmotiv loolu moo doon sunu créé de dogo aller sur le terrain jàppale askan wi et puis yaakaar nañ at bu jot insha allah rabi bu ñu yàlla kattanale may ñu bakken dinañ ko dinañ ko def alors ginnaaw seen mbootaay bi nga xamante ne leen ëmb ñu ñi dañu naan ci nga dañu nekk ci biir jox joxuñu leen cër wala nekk ci parti yoo xam ne dañoo euh, ànd ak président Macky Sall mais cër boobu tardé na ci biir Thiès ba nga xamante ne donte ni am na ñu fi tab jox leen ñu war a jiite li nga xamante ne moom mooy parti bi ak tamit coalition bi dañ leen a bedd ci yu baree ba. waaw ok Omar xam nga cër moom man dama jàpp ne yàlla moo koy joxe ñun d'abord. faut pas que ñu yaakaar c'est nous sommes des frustrés non nous sommes pas des frustrés en fait ñun nous sommes des des jeunes politiciens yu dëkk ci dëkk bi nekk ci parti ba nga xam ne ñun gisuñu organisation ba nga xam ne dal na suñu xel moo tax ñu créé lii d'abord c'est cadre comme ni ma ko waxee cadre la ba nga xam ne nit ñi dañ ciy daje di waxtaan di sottante xalaat di xool lu ñu jëmale kanam moo ci biir li ñuy jëmale kanam itam nous avons des ambitions ça loolu duñ ko nëbb mais ambition yooyu noonu fi ñu ko yaakaar woon d'abord mooy ci parti ba ñu bokk mais na mu ko xiiroo ngaayoo bu bëri na lool en tout cas liggéey fa jafe lool ñu ne nañ xool beneen cadre ba nga xam ne dina sain te kenn mun ta ñëw naan am benn couleur wala benn parti boo koy boo koy boo koy boo koy boo koy méngaleel ñu dox daje fa et puis liggéeyal président Macky Sall ngir yàlla mooy ko ndam ci élection yi muy sumb. li kilifa ngeen ci waxtaanal fii ci Thiès. bon là actuellement déroulé gu ñu suñu pro suñu suñu suñu programme pour dem seeti kilifa yi mais bàyyi bàyyiwuñu kenn on va aller voir tout le monde. le coordonnateur de la commune Thierno Alsane le coordonnateur du département Augustin ñoom ñëpp dañ leen seeti ji waxtaan ak kilifa yi nga xam ne tey ñoom la fi président Macky Sall teg bàyyiwuñu kenn on va aller voir tout le monde afin de collaborer bon maintenant il reste à vérifier si le retour nous sera encore transmis kooku moom dafa nekk la nga xam ne yow mun ngaa dem xamoo loo fay fekk mais en tout cas nous sommes déjà ouverts à toute forme de collaboration. Mhm. législative yi ñu jëm am na ñuy wax nii ñu ngi commencé am ñu yaakaar ni ñooñu la ñuy tabb ci liste yi nga xam ne ñoo war a teewal askan wi foofu ci assemblée national mhm. euh, fii ci Thiès gis na ni am na ñu bëri commencé nañ génn di wax pour ñaax ñi xam ne ñoo kilifa yooyu pour que ñi ñuy tabb mu nekk ñi nga xamante ne moom mooy euh, militants yi nekk ci base bi. waaw gis nga le choix des hommes loolu nekk na lu am solo xam nga Omar euh, affaire politique nekkul affaire de xarit wala affaire de copinage. nañ fexe ba nga xam ne ñii tabul danañ nekk ay nit ya nga xam ne vraiment Thiès amal na leen njukkal ndax bu nit ñi di voté du caage ne dañuy votel parti mais c'est des élections de représentativité comme élection locale loolu mooy wane na kon ñun nañ xool nañ ñi ñuy jiital ndax ñooñu ñoom ñooy tax ba képp ku dem di voté boo xalaatee na ah man kat kii ni jiital kat liggéey na liggéey bu am solo ci dëkk bi da nga votel président Macky Sall ak coalition am mais bu ñu jiitalul ay nit ñi nga xam ne tey jii nii Thiès da leen di sago mun nañoo am ay vote sanction yi nga xam ne day yàqal président moo tax ma ne politique doo affaire de xarit doo ay affaire de copinage nañ xool ñi nga xam ne yayoo nañ ko ñu jiital leen ñoo ñu nekk ci liste yi ñeneen ñi ci des itam comprendre que ni ñëpp mënuñoo tëbandoo rek nekk ay député wala nekk dans des à la bonne place bu ñuy demee. ñeneen ñi xaar et ñu yaatal ñi nga xam ne tamit yàlla jox na leen nombal tànk ñoom ñi bañ fi nekk di xëccoowaat encore ak ñi nga xam ne amaguñu dara ndax bu fekkee dañuy politique yow nga jàpp ci dara fexeel ba ñeneen ñi nekk sa ginnaaw itam jàpp ci dara noonu la mbir mi demee mais bu fekkee danga bëgg jiitu chaque fois bu yàggee ay frustration day am te loolu baaxul ci ci parti. place bii ngeen ñëw tey di maternité ki fi nekk njiit Aïssatou Ndiaye madame Diallo nit ku baax la. amul moroom ku am yërmande moo ko personnel bu nekk fii ba ci balekat yi ñoom ñëppay bokk di añ ku oyof la ku jàppalee ñi fiy ñëw lañ bu ñu paree ci loolu ay Aysatu mii ngeen di gërëm man dama nekk ak moom suñu kër a ngi fii tout près waaye du añ resto su ma teelee ñëw du añi daf may xaar man damay bale fii en plus bàjjenu goxu aslm dixième la di bàjjenu goxu goxu poste de santé bi waaye ay Aysatu du lekk bàyyi ma du naan bàyyi ma loolu dama koy firndeel macha allah ndig docteur Diop kuy ñëw ci moom ngay jaar waaye Aysatu yombal na lépp ku ko fi fekkul Aysatu dina waxanteek yow ba mu mel ni docteur fii la ko fekk kon Aysatu yal na yàlla guddal sa fan may la boroom kër gu la àttan ndég nit ku baax nga waaw man loolu dinaa la ko seedeel kii nag sama mag la man gën naa leen bëgg kii sama mag la ndég baax du waa du weesu baax te tooy du paase xepp wow du paase koom nit kii nag dama ko bëgg ndég benn jarbaatam man xaw ma ko doomu burgé wala jomb naa wax lu xamul xawma la waaye bëgg naa la ndeg ñaañataal ñaaña sama sama sama sama sama man maay sangam man <laughs> sama sama doom bàjjel mu ngi noonu oh. su waxoon ci yow lu ñaaw su ma ñëwee bëgg wax wax ju rafet duma la tudd waaye dama lay gërëm di ñaanal yóbbu nga nit utal ko fu mu nekk te taxawoo def nga te disoo ki nga defal kon yàlla miy fay yàlla na la yàlla fay yàlla boo dis lu la jaaxal ndaw nga nag yàlla nga jëm ca kanam te kuy jàppale na nga jàppale ndaw kuy ñaanal na nga ñaanal ndaw ndaw ndeg ndaw mooy dooni mag ëllëg mën nag maa ngi rafetlu seen taxawaay fii tey nde xamoo ku ci doon tey naib waaw kon machallah yal na la yàlla fay yàlla mi am jàmm na leen jàmmal ànd ngeen nag gaynde njaay te lu baax rek ngay def nag <laughs> machallah blog bi mu ngi ci ginnaaw nga bàyyi ci sa xel mhm. te bul fàtte bàjjenu gox yi bu district sanitaire bu Thiès sàkkantuma fii ma nekk man nga ne ñaaña sa doomu nijaay la ñaaña sama doomu ndey la kon nag bàyyi naa lépp sa loxo